VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pipes et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 24. VIP People DAL, fallait les Soyons sérieux quand même.

ñoom waxul opposition dafa ne ñun manifestant yi dañoo def ñetti fan kenn du liggéey kenn du def ni benn banque du ubbi oto bu ñu gis dinañ law def nii dañ leen def naa mais xam nga góor yàlla dëgg <laughs> day jàkkaarloog nit di wax ak moom góor yàlla dëgg yor li ci suuf mu wóor na li ci suuf la da nit ñi di wax ak ñoom ne leen man maay def li doo tollu Europe te làqatu sa ginnaaw caméra wala nga def say audio waye yeen ñep dinañ leen japp ben par ben képp ku fi jaay wuyu fi di nga xam suñu Sénégal bi Sénégalu jamm ak salam la Sénégal bi ngeen jaay ngeen fonni di ngeen ko paccio ak ngeen nax seen bop ak ngeen nax seen bop 3 jours anamu. Auchan Auchan bii ngi tijji. Mhm. Euh, fi ngi di boulangerie ya ngi tijji ni ma xey nañ lek mburu lek yéey suñu croissant fasiyene ay marché yi ubbi nañ. de international bi la nax rek suñu mbokk yi nekk ci diaspora bi na seen xel dal ñi ngi añ ñi ngi reer ñi ngi ndékki. jërëjëf tàggoo ñuy seetaan maa ngi ah, nuyu waa tout Sonko nag surtout waa Bordeaux Paris la France nga xam ne ku mel ne Paulel Sow ak Khadijatou ñi ngi liggéey liggéey bu rafet Angleterre waa tout Sonko ñi ngi fa Amérique boo leen naree di lim euh, dafay dafay kii lool Khady Dieng Allemagne ay euh, Aïcha. jël nañ bi yëpp teg ko ci loxo Asmali Dieng mu nuyu ñu waatu sauf Sonko yëpp et le combat continue on baisse pas des bras ñun xoqatal ñu dara jaaxalu ñu ñun suñuy parti suñu mouvement politique yëpp dañ koo teg ne jël tout sauf Sonko bi war a jàmbaloo yow Ousmane Sonko wàccal nit ñi Ousmane Sonko yërëmal sénégalais yi man je je je te pose une question carrément nii ci kii bi comment tu peux dormir la nuit nan nga mënee nelaw guddi nelaw ba yandoor ba pare Ousmane Sonko dafa foog dañoo nekk dëkk boo xam ne euh, fi ñu toll nii moom dafay tëdd ñu tëj ko kaso après dëkk bi coup d'état am ñu jël ko yóbbu ko moom day dund benn film daal film yi nga xam ne tubaab bi dañu koy woon ci ci canal yi je pense que moom lay dund mais nag yërëmal Sénégalais yi nga wàcc leen xam ne bés boo waree falu da ngay falu ndax Macky Sall mii tey ku ko newoon tey di nga doon président Sénégal mu ne loolu du am ak keneen ak keneen ak keneen. kon àndal ak dal andal ak tey euh, dellu si watal sa xel nga xam ne fii Sénégal ñun ñëpp ko bokk ñii di def yii yëpp nañu dellu si waat seen xel xam ne alalu àdduna dara jaru ko yàlla dafa bind te yemalewul mm-hmm. nga am sa wërsëg ma am sa wërsëg keneen ak keneen ñii ngeen di gis ñu yor oto yi rafet ñii dëkk ci kër yi rafet ñii dëkk almadi léeg-léeg bu ñu añee duñu ñu reer bu ñu reeree du ndékki delloo si waat leen seen xel. VIP People TV VIP People TV le site des grands événements partout à travers le monde abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pipes et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 24. VIP People DAL, Vous les